xamul ñu des ca waar wa bu tey metti mbokk site internet yi ñuy seetaan ñoo ngi fii nii tey ci berge du Sine bi c'est les tailleurs ñoo def ak ñoom spécial tabaski émission bi nga xam ne moom lañ leen jagleel ci waajtaayu tabaski bi ñu ngi fii nii chez taala taala ku ko xam na xam ne tailleur bu mag la ñu naan ko taala Mbow ma ànd ak sama caméraman bu ñaawul bi ñu dugg xool ban tendance la àndil ci tabaski bi bon d'abord maa ngi leen di remercier ñëpp yéen waa Mindiss TV bi euh, di réaffirmer rek vraiment Euh, sama cofeel bi nga xamante bi am naa ko ci yéen parce que nag euh, ni ma ko waxee la fois de dernière rek yéen a ngi bay seen waar yéen a ngi def li nga xamante ni bii nii vraiment population bi manqué woon na ko trop euh, kon nag danañ ciy remercier vraiment pour la question tamit ci affaire tabaski bi cette année ci moom je si suis dit que ni c'est spécial par rapport ak yeneen tabaski yi parce que bu ñu xoolee daaw pratiquement tabaski amul Sénégal ndax dañ ne ko ci période confinement raison pour la laquelle xam naa ne sénégalais moom bi yoon da nga ko def tabaski rattrapage la quoi waaw da ko def pour rattrapé wu moo tax euh, nit ñi teel nañ génn vraiment teel a ñawlu geesneer euh, bi moom desul gannaaw geesneer bi voile brodé bi euh, ak dantel autriche bi yooyu yëpp c'est des tissus yoo xamante ni macha allah fi na moo génn ci tabaski bi waaw mooy bomb daal en quelque sorte mooy bomb waaw moom xale yeeg mag ñeeg góor ak jigéen ñëpp daal waaw bi yoon moom doon na fas yéene tabaski incha allah rabbi bon d' abord pour góor ñi bon bu ñu xoolee xaftaan prédicor yi naturellement mooy li fi nekk mais nag bi yoon aussi moom tendance bi dafa gën a dafa gën a yéeg parce que nag góor ñi moom bi yoon danoo danoo rakkaaju bon bu boobu rek grand boobu sur grand boobu gars yi koo ci gis la waaye day wut ay 8 mètres jesner door seen i grand boobu waaw nee naa moom moo tax man la gars yi doon xoolee grand boobu 217 yi bon moom musta 217 sax laay wax bon mooy machine boo xamante ni bii ba illaa yow mi dindu xew yi bi Grofil di di di di di di nekk 217 dafa ànd ak moom bi Grofil demee 217 dafa toggaat moo tax euh, couture la boo xamante ni bii nii bon dama naan xale yi nañ ci góorgóorlu jëm koo jëm koo mën waaw parce que dafa nekk loo xam ne dafa dafa du du du du du fi jógee waaw du fi jóge bon vraiment euh, style de couture la boo xamante ni bii dafa dafa pratique tey dafa dafa sophistiqué macha allah c'est trop professionnel bon pour le mot de la fin di di leen remercier waa Mindiss TV ni ma ko waxee sama njëlbeenu kaddu di leen remercier bu baax a baax di leen ñaanal di leen ñaanal tabaski jàmm ak salaam ñaanal naa la ko ci korite gi yaa la ko ñaanal ak ci tabaski bi yéen balaa tabaski déwén na fekk ngeen am chaîne de télévision buy diffusé ca canal orison waaw loolu moom maa leen koy ñaanal te nag euh, di am rek benn naqaru xol nag boo xamante ni bii danaa ko fustiger parce que bu ñu xoolee démb ba tey liggéey defuñu ko ndax lan ay coupure de courant te lii nii bon ak dellu ci réew Sénégal tollul foo xamante ne bii dañu war a nekk fi di couper ay courant courant pendant deux jours ci période boo xamante ne nit ñi day liggéey nit ñi day soxla seen jumtukaay day soxla seen seen i seen i matériel pour liggéey nga leen di privé de d'électricité pendant deux jours alors que loolu mën na indi ay répercussions ñun suñu client te ñoom du seen yoon du ci nekk su boobaa. ci ngalaama du jàmbaar mooy des ca waar wa Sénégal déggu leen kii ba ñu wéy ko jooxamu Abdoulaye waa niñ leen ko defaloon sànq rek Cheikh Talla ñu ngi nii place su euh, Toub Juma Ndiaye Touba Taïf ñu ñëw seet ko tamit ci spécial tabaski bi moom tamit mu wax ñu moom mot yi mu génnee at clients yi tamit ndax ñu ngi ñëw ndax amuñu benn jafe-jafe tamit ci wàccaay tabaski bi juma ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si di wax asalaamaaleykum waa Mindiss TV maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam euh, di rafetlu seen i liggéey. parce que vraiment waa ministre bi ñu ngi dégg seen liggéey ci dëkk bi xëy na tey la yàlla dogal ngeen agsi fi mais macha allah rafet nañ seen liggéey bu baax a baax waa bu dee ci tabaski bi ma laaj nag ñu ngi ci sant yàlla bu baax ndax euh, mën naa ne daanaka dañ naan nit ñi sax dañoo yàkkamti woon tabaski bi xam naa ne année bi passé nga xam ne ak feebar bi amoon taxoon na ba nit ñi namu tabaski waaye clients yi macha allah ñëw nañ ñun sax teel nañoo arrêté liggéey bi. mais instant bi moom wax dëgg fa yàlla ñu ngi ci liggéey bu baax a baax a baax. jërëjëf soxna si mooy comme ni nga ko waxee man mën naa ne maanaam bu ñu nee mode am na sax dama naan mode amul parce que nit ku nekk ak li mu tollool nañ fi ñëw jasner basin riche bi moom macha allah gars yi ñëwee nañ ko lool jasner bi it gars yi ngi koy song euh, di ko defar ni mu waree euh, val brodé bi nga tuddu léegi ñu ngi koy ñaw macha allah en tout cas ñaw yi moom mën naa ne catégorie yooyu yëpp ñu ngi koy liggéey euh, ñu ngi ciy def liggéey bu mucc ayib waaw di ci ay taybaas yu baax nag. ay robe yu baax góor ñi ñu leen di ñawal ay jasneer di leen ñawal ay sabadoor yu baax ay près du corps yoo xamante ni boo génnee rek soxna si bu la gisee dina bëgg ah, jigéen ñi it am na nag mode buñ génnee muy ay grand boubou man sax boobu dama koy saluer parce que dafa rafet parce que yére bu yiw la lu am ne tabaski boo ci solee ay grand boubou ak jiital vraiment loolu dafa rafet te dafa habillé euh, mode boobu moom damay ñaan moom na nekk sax mode bu continuer ba ci kanam a kanam di rafetlu seen liggéey parce que vraiment li ngeen di def nii feeñal ngeen ko nëbbu ku feeñ yokkal ngeen ko fi gën a feeñ parce que li ngeen di def nii nit nekk na ci métier bi ba màgget te mosul am ku ko siwal kon li ngeen di def nii dinga def te fayeeku leen kenn dara dañ leen ciy remercier parce que lii liggéey bu yaatu la vraiment jàppale la ku ko xeebit liggéey bu am solo la bu leen weesoo it may gërëm xale yi nga xam ne ñoo nekk ak man parce que tey ku nekk xam na ne jàng métier neexut dinañ la wax lu la neex danañ la la naqari waaye du tere da nga koy muñ ànd ak yarte vraiment ñoom ah man de ñi ma nekkal wax dëgg fa yàlla jox nañ ma cër boobu. Abdoulaye Waye njoxo bul tiit bu ragal gàcce nga laama du jàmbaar mooy des ca waawa interno yi ñuy seetaan ni ñu ko defee sànq euh, ci tailleur Fatick yi ñoo ngi nii ci xamel création ku ko xam nag xam ne tailleur bu mag la ñu naan ko Xaadim Mbay Xaadim tey waa Mindiss TV seet si woon la ci spécial tabaski euh, nga wax ñu mot tabaski yi génn ak client yi ndax ñu ngi waajal tabaski bi wala Xaadim ñu ngi maa ngi leen di fay lu bëri. waaw ni leen jaar jaar Fatick yëpp waaw di leen wax ne événement moom sant la waaw ñoo ngi si kawam ñoo ngi dóor vraiment waaw affaire yi moom am na ay modèles yu tendance yu génn am na ay yére jigéen am na ay France waaw am na ay double coup am na nag ay ay yu classe yu génn am na tin am na gaz waaw yére yi moom dañ ci dañ ciy def mu ci ay yu classe vraiment waaw di wax ni moom client yi moom ma ah, ñoo ngi ñëwal bu baax commande bi yi ñoo ngi ñëw waaw ñoo ngi avancé macha allah di sant mi ni am nañ yaakaar ni balaay boobu waaw affaire bi moom dina avancer bu baax waaw incha allah waaw à courant bi nag moom ah, autorité yi ñoo ngi leen di lancé appel comme ça ñun bu ñu si mënee jàppale. waaw gars yi moom vraiment jël nañ jasner bi surtout jasner euh, noblesse bi waaw nekk na benn jasner bi nga xam ni moom macha allah quoi macha allah ñoo ngi ciy ñëw ay ñëw yu rafet waaw ay ñëw ordinateur yu rafet. waaw val brodé bi tamit waaw tendance na quoi val brodé bi tendance na waaw waaw même jasner unique bi tamit moom xam nga ñoo ngi siy ñëw yu rafet tamit vraiment waaw double coup yi tamit moom xam nga fàtte wuñ si góor ñi quoi ñoo ngi leen di dóoral ay affaire yu am classe waaw double coup yi surtout ñu ngi dóoral affaire yu rafet macha allah même garniture tamit nekk na xam nga loo xam ni dafa rafet te xam nga dafa classe te nga mën nga ci am yu original yoo xam ne mooy loolu même même jipir bi aussi xam nga ti si per bi nii femme yi ñoo ngi koy ñëw ti si sañse bi quoi ñoom moom xam nga dañoo bëgg sañse waa dëkk bi waaw ñoom moom ku leen xam ci Sénégal xam ni moom dañoo fonk solu waaw vraiment waaw waa Mindiss bi nag ma leen di wax ni mooma ah, foofu la de caméra bi saf na sàpp waaw reportage bi ab jaar na yoon donc site internet yi ñu doon seetaan yéen ko gisandoo defal nañ leen spécial tabaski chez les dem nañ ci tailleuru Fatick yi xool nañ leen gis nañ niñ toogee ci tabaski bi war nañu ay mode yoo xam ne mot yu tendance la. ñu ngi leen di jëfal ba beneen yoon di leen jox dig daje fii ak ay fan yu néew.